organisation yu aussi <clears throat> au delà du folklore da ngeen koy transférer dans le développement donc je ngi remercier ñëpp ci teewaay bi di remercier madame la mairesse di remercier Seynabou di remercier partenaire ami Paula Ilarie, Projecto ak ñoom Francisco man maa ngi tudd Seynabou Cham, ki ma dendal sama gauche Ilaare Pokai, présidente Projecto Sénégal Onlus ak euh, Paola membre Projecto Sénégal ak euh, ñu ngi journaliste bu Francesco ONG bi Projecto Sénégal je pense que depuis 2002 nous ngi intervenir au Sénégal dans le domaine de la santé et de l'éducation donc euh, il a moko créé ak ay yenen natangom yo xamné ngi Italie Castelnuovo di Garfagnana foofu lañ en Italie donc euh, depuis 2002 ñu ngi intervenir au Sénégal ci côté santé ak éducation ñun social kese la ñuy def partout au Sénégal moo tax ñu tuddee ko au Sénégal fépp la intervenir euh, réalisation yi ci gën a gën am solo mooy que am na dëkk yoo xamante ne nii tànn nañ leen bi ñuy commencé mu nekk ay dëkk yoo xam ne école yi chaque année dañ leen di jëndal fourniture pour élèves yëpp donc euh, dëkk yooyu am école bu nekk Caaña yi ci la bokk am na école bu nekk Taaxum ci la bokk am na école bu nekk teen tubaab ci la bokk école bu nekk euh, Malicounda Nguuxuut ci la bokk école bu nekk Diabougou ci la bokk Mbouleem aussi ci la bokk Thiamène ci la bokk am na aussi ay garderie d'enfants yoo xam ne ci la ñu bokk am na aussi ay case de santé yoo xamante ne nii dañ leen di jëndal ay matériel di leen ko dimbale ci ci village yi am na aussi ay hôpital yoo xam ne ñu ngi dakaar chaque année dañ leen di may ay vitamine pour xale yi di leen may aussi ay ay garab suñu ñëwee ak euh, ay xale yu feebar yoo xam ne dañ leen di jël en charge di leen faj ak ay mag yu feebar aussi di leen jël en charge di leen faj. journée de la femme bi li waral tey ñu marqué ko à Thiadiaye chaque année bu ñu ñëwee dañuy dañuy dimbale ay ay ay ay ay jigéen ci biir dimbalee jigéen yooyu aussi dañuy sensibiliser waale jigéen ñi ci affaire violence yi am ci jigéen ñi nuñ koy moytoo ak nu ñuy def ba violence boobu du dal jigéen ñi. ñu initié won ay ban yo xamné ban banc yu rouge lañuy def def ci sunu logo buñu dajalé dajalee ñi aussi may leen banc yi dañuy waxtaan ak ñom di sensibiliser waale jigéen ñi ci affaire cancer sein ak cancer col de l'utérus nu ñuy défé test euh, mammographique bi sa kër à domicile chaque mois d'ailleurs le 11 bi samedi 11 war nañ amat manifestation bu non noonu fii Thiadiaye dajalewaat jigéen ñi jox leen ay carte yo xamné pour un an la chaque mois nga defal sa bopp autopalpitation bi bo gisee lo xamantene ni lu étrange la ci sa wène nga ñew signaler ñuko bu ko defé ñun ñu tété la yobbu la ci structure yo xamantene ni dinañ xol lan mo waral lool na di len sargal rek jigen mom moy aduna jigen moy monde bi jigen moy lepp parce que ñoy sunu yaay kon jigen diko sargal lu war la. sargal jigen sax ñu xaar ba le 8 mars saa yu ñu rek war nañ di sargal jigen, parce que jigen ñom defe ñom ñoyor lepp